Sénégal oh, ya, ya. eh, eh, salam salam waa masa, Massar man dama maru. maa ngi leen Je eh, vous ci président Ousmane Sonko ñun wa Mogi Kër Nord ñu ñëw di woo suñu mbokk jigéen ñi journée bi organisé le 27 mars 2022 ici à Kermassar au niveau du terrain Yekini près du terminus 71 euh, à partir de 17 heures ñu fas yéene ci sargal une grande dame je nous qui Sargal, la maman nationale, la maman des patriotes, Adja Maïmouna Dieye. fa nous aussi ci journée pour rendre hommage à sœur yoo xamante ni ñun ak ñoom ñoo ndëkkandoo woon fii di liggéey yàlla ñu ci rendre hommage à Maria Massagna, ak Marie Mbaye ñu fas aussi def une conférence sur le thème de leadership féminin face aux problèmes culturels au Sénégal qui sera animée par notre sœur patriote

ñoo fi jógee euh, ci ci journée boobu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox rendez-vous dimanche incha allah le le vingt sept mars et di ñaan yéen ñëpp ngeen teew fa incha allah yaa rabbi